parce que déglu ma parce que benn instant waxu dëgg waaw xam xam nga wax dëgg li ko nekkul sax bàyyi ma expliqué ko bàyyi ma expliqué merci bàyyi ma expliqué waaw léegi mais jël sama xaalis baaxul ay naw exactement he accepte he agree with you. non loolu dëgg la loolu dëgg la xam nga problème bi mooy lan. xam nga problème Mahmoud xoola mu mënoo wax. ba pare ba pare di jéem a. protéger waxaat leneen loolu la comprendre nga. xam nga lan laay wax dama koy wax man ki nga xam ne waxul. fii sans cesse la fii sans cesse la fii baaxut fii bëgguma sa. dama la dama la ah sama nan la. man xoola dégg nga xam nga. mën naa ko arrêté. déedéet déedéet xam nga sama nan la. ci këru avocat laa juddoo. mënoo maa réeral ci wax. wax bi benn wax kese lay doon. Mohamed dama la doon jéem a dóor. dóor bi mooy maa ngi jégalu. est-ce que doo paa est-ce que doo paa amoo bejjaaw yow ñu ñaar ñoo tolloo ak. ay nandite lañu. est-ce que comprendre ñoo bokk génération. mënoo ñëw luxus luxus luxus. est-ce ba yóbbu xaalis bi mënul nekk. xaalis bi yónnee woo ko. yónnee wu ma ko xam mais da nga ma ne da nga koy yónnee fen ma. mais nangu nanguwaat na loolu. xam nga ma nangu xam nga ma wax la loolu. maa ngi ma man ba léegi maa ngi lay may chance pour nga wax ma dëgg bi. moo tax mais bëgguma wax dëgg bi. léegi nga ma koy soog a wax lii commencé na depuis ah. suba. man maa wax ak moom yaa ma oo nag téléphone ne ma kaay wax ak Mahfouz ma ñëw wax ak moom mu nangu. yaa ngi dégg nangu na wax bi jeex na fees. li nga xam ne exactement moo tax. ba ma filmé rek naa la doog ci fay. Mahfouz Mahfouz. xam nga lan moo xew exactement. Mahfouz du ma la gis benn affaire bi nga bi nga xamante fekkee wu ba ñuy di fekkee wu ba ñu fekkee wu mënoo rey nit ki ba pare suba la lii xew ba pare ne waaw ba tey nii si ngoon yi moom moo téléphone dama kaa dimbali ma soo reyee rek rek fekk daf ma dóor wala boo kon ñëw yóbbu suñu pour ngeen problème dafa amoon dama lay wax ki nga xamante ni bi dama gëm ne daf ko dóor daf ko dóor kay bon bon film dama wax loolu moom moom ABC this is not important eh, non non jeex na jeex na xaaral man man is important li wax yi right exactly Diop bàyyil kii. man dama leen la xaalis dinaa ko yónnee waaye dinaa ko yónnee waaye. xam nga loolu laa wax parce que déglu ma parce que benn instant boo ko dëgg. waaw xam nga wax dëgg bàyyi ma expliqué ko bàyyi ma expliqué ko merci bàyyi ma expliqué ko. waaw léegi xam nga mais jël sama xaalis baaxul. ay naw exactement. he accept he agree with you. non dëgg la loolu dëgg la xam nga problème bi mooy lan. xam nga problème Mahmoud xoola mu mënoo wax. ba pare ba pare. di jéem a. protéger di waxaat leneen loolu la comprendre nga. xam nga lan laay wax dama koy wax man ki nga xam ne waxul. fii sans faute la fii sans faute la fii baaxul fii bëgguma ko. dégg nga man xamal lan la. man xool dégg nga xam nga. mën naa ko arrêter. déedéet déedéet man xamal lan la. ci këru avocat laa juddoo. mënoo maa réeral ci wax bi benn wax kese lay doon Mouhamed dama la doon jéem a dóor dóor bi mooy maa ngi jéggul est-ce que comprendre doo paa est-ce que doo paa amoo bejjaaw yow ñu ñaar ñoo tolloo ak ay nandite lañu est-ce que comprendre ñoo bokk génération mënoo ñëw luxus luxus luxus est-ce que comprendre ba yóbbu xaalis bi mënul nekk xaalis bi yónnee woo ko yónnee wu ma ko. xam naa ne yónnee woo ko mais da nga ma ne da nga koy yónnee fen ma. mais nangu nanguwaat na loolu. xam nga man xam nga ma wax la loolu. maa ngi ma man ba léegi maa ngi lay may chance pour nga wax ma dëgg bi. moo tax mais bëgg ma wax dëgg bi. kay léegi nga ma koy soog a wax lii commencé depuis suba. man maa wax ak moom yaa ma oo nag téléphone ne ma kaay wax ak Mahfouz ma ñëw wax ak moom mu nangu. yaa ngi dégg nangu na wax bi jeex na fees. ma la li nga xam ne exactement moo tax. ba ma filmé rek naa la dog ci pàcc. Mahfouz Mahfouz. xam nga lan moo xew exactement. Mahfouz dama la sa benn affaire bi nga bi nga xamante ne fekkee woon ba ñuy dégg fekkee woon ba ñu xamante ne fekkee woon mënoo rey nit ki ba pare suba la lii xew ba pare ne waaw ba tey jii si ngoon mu ma mu ma oo téléphone dama kaa dimbali ma soo reyee rek rek fekk daf ma dóor wala boog ñëw yóbbu suñu ma pour ngeen problème dafa amoon dama lay wax ki nga xamante ni bi dama gëm ne ah. daf ko dóor daf ko dóor kay bu ma filmé dama wax loolu moom moom ABC this is not important eh, non non jeex na jeex na xaaral man money is important yeah you're right exactly Diop bàyyil kii. man dama leen la xaalis dinaa ko yónnee waaye dinaa ko yónnee xam nga